عليك صلاة الله ثم السلام فبرها مجد عاشق فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الوجود صلى الله عليه وسلم alfaatihi xaatimi naasiri lhaydi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari lazim ورضوان الله تعالى عن الختم المحمدي الاكبر والكتم الاحمدي الانوار شيخ المشايخ وبرزخ البرازخ ممد كل الأولياء والعارفين من بحر السيد المرسلين شيخنا وأستاذنا ووسيلتنا إلى ربنا الخطب المختوم والخاتم المحمد Ahmad ibnu Mahamad at-Tijani al-Hasani Sharif radiyallahu anhu wa anwar sirrihi wa batin shakhsiyatihi zamzam arwah lisanu waqtihi faridu dakhrihi tajul arifin badrul buduri faydul fuyudi shamsul shumusi wal khatmu sani mawlana cheikh al islam el haji ibrahima ibn abdallah tijani an madadi sayyidi wa habibi wa murabbi Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amin nafahallahu bi barakatihi xadasallahu sirruhu amin yaa himmata cheikh uxduri lana bi hada mahdari wal taxti fihi bi nawratin taxti lana bi safari wa baad assalaamu aleykum jamian wa rahmatullahi taala wa barakatuhu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu macha allah ñu ngi sant yàlla di ko sant dëgg-dëgg jant di julli saa su nekk di sëlmal si sang njëkk di sang mujj muy borom jikko yu tedd si njëlbeen ak si mujj muy sayyidul wujudi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ndokkeel tey ñaan nga mën yàlla muy sax di wàcc si borom guddi bi muy saaxibul xatmi wali këtt mi abul abbasi ahmad ibn mahamad atijani radiyallahu anhu bi nga xam ne wax na si xàkkam ne inna al fuyuda allati tafiidu min zaati sayyidi al wujud tatalaqaha zawati al anbiya wa kullu ma saada wa baraza min zawati al anbiya tatalaqaha zaati wa minni yatafarraqu ila jami al xalq Cheikhu Tijaani dafa wax ne lépp loo xam ne ay mbóot la ay leer ay imdaadaat ay tajliyaat muy bàyyeekoo ci xadaratul ilaahiya muy pay yàlla bi mu ne jëmm yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ci koy dégg mbóot yooyu leer yooyu imdaadaat yooyu ak barakaat yooyu bu bàyyeekoo si jëmm yonent ki koy dégg moom mooy jëmm yonent yi waaye moom Cheikhu Tidiane nee na mbir yooyu su bàyyeekoo si jëmm yonent yi nee na si sama jëmm la yow man Seydi Ahmad Tidiane yi te si man la mbóoti ji takk la koo dem si mboolem bi ndax yëpp amul kenn ko xam ne yaa ngi naan wala ngay nandale lu may ne suma géej man Seydi Ahmad Tijaani nga naane la yashrabu waliyun wala yusqa illa min bahrina min ladun aadama ila nafati suuf Cheikh Tidiane dafa wax ne xaddima yaa xaataani ala raqabatin kullu walillahi taala min ladun aadama ila nafati suuf mais man Seydi Ahmed Tidiane yi suma ñaari tànk yi te su waxee ay tànk ay makkaaba la si jublu muy al xatmiya wal kitmiya muy charia wal xaqiqa Cheikhu Tidiane nee na suma ñaari tànk yi teg naa ko si loosu bépp waliwu ba yàlla de yàlla ba keroog bëft bi wol waaye ñu ngi wàcc di ndokkeel ki nga xam ne mooy jekki faas rafet kaala borom dënn bu Baye Barhama Abdallah bi nga xam ne dëggal na waxu Cheikhuna wax ne moom Cheikhu Tidiane yi ki nga xam ne zalikal barzaxu allazi bayna baxrayni aalamay wal faydul muhammi sayyidul aarifina wal mulku fihim waarisul ki di Cheikhuna Tidiane yi moom mooy intermédiaire bi nga xam ne moo dox diggante géeju lu lépp loo xam ne dafay bàyyi ko ci géeju ne yi di ko dégg mbaa ñu ne naa Cheikhuna Tijaani la moom mooy seet gi leer yooyu nag tasaare ko ci waa wilaaya ne Seydi Ahmad Tijaani képp kuy aar it moom mooy sa sang moom Cheikhuna Tijaani loolu la bay wax waaye moom mooy ki nga xam ne moom moo doon rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi yemul ci wax loolu dafa waat ne la amriya asa cheikhu aynu wilayatin tafajjarat min bahri nubuwatin safiya man Cheikh Ibrahima Niass maa ngi jiiñ ci suma dund mais kii di Seydi Ahmad Tidiane du wàllu waaye moom mooy jëmm ak wilaaya bi nga xam ne mi ngi naanee ci géej gu yonent nga xam ne géej gu sell la fële ñuy taxaw wàcc daf tawassul si suñu bunt ci yàlla suñu wasila suñu bumu jokko ilal xadratul ilahiya muhammadiya ahmadiya ibrahimiya muy sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Amin di ko ñaanal yàlla léppi la fi ci gën yàlla na ko yàlla defaral te bëgg bàyyi di ñaan yàlla muy sax dañu may bu mu jomb bu mu buntam di taxaw foofu nag di nuyu ñëpp di ñaan jàmm yërmande ak barke muy sax di rolagaat si képp kenn bi wax ashhadu am laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah di xaasal si nuyoo boobu ñi nga xam ne ñoom la yàlla jiital si jotaay bi di ci njëkkee ki nga xam ne moo Chérif Hamza Atijaani bi nga xam ne néew na ngay ñëw jotaayu Nuurul Baxaatil Quddus ki nga xam ne dañuy wax saa su ne ne maamam bi Seydi Ahmad Tijaani moom moo ko jël jaglal ko waa Sénégal néew na itam mu yëkkati kàddu ba jeexal te di ñaanal jàmm suufu Sénégal moom ñoo koy ñaanal yàlla. yàlla dolli ko dëgëral may ko kattanu jëmm ngir muy mën a di continuer saa su ne di wéyal liggéeyal bi nga xam ne mooy Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu waaye di xaasal si nuyoo bi ki nga xam ne moom mooy Seyda a bint Malana Cheikh Ibrahima mi ngi di topp ko xam ne suñu bàjjen kiñ ne si dee nañu léegi ne dafa am ngant bu valable ngir ne Kaolack la jugee amoon fa dog-dog waaye mu ne la boule de il faut que mu teewee jotaay bi nga xam ne mooy laylatul ya bu Seydi Ahmed Tidiane di sirru Nourou Bakhar mu def ay effort yu bëri nag ngir teew si jotaay bi di jël kàddu bi di ko dellu seen Moussa Souane bu jàng alquran bu ñu fayee ñu continuer li nga xam ne mooy nuyoo Seydi Moussa bismillah. عبد الله

qadrihi wa miqdaarin azim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli yaa himmata cheikhi uxdur lana bi hada almaxdar wal taati fi binadratin taati lana bi zafar subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimul hakim assalaamu aleykum jamian wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñi ngi sant yàlla bu baax moom mi nga xam ni ci coobareem la jotaay bii amee mu askaneel ñu ko pour bëgg ñu jëriñ pour bëgg ñu jéggal pour bëgg ñu xëcc ci boppam ñi ngi sax di ko sant ci xéewal yi nga xam ni mi ngi sax di ko dotti ci ñun ñu ngi julli di sëlmal ci saydil awalina wal axirin di sayduna muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam di ndokkeel saahibul xatmi wal këttmi moom bi nga xam ni moo taxaw ci maqaamaam wax ne laa yashrabu waliyun wala yusxa illa min bahrina min ladun aadama ila nafxi fi suur moom mawlaana abul abbas cheikhna ahmada tijani radiallahu taala anhu taxaw na dëggal ne benn góor yàlla du naan leer wala mu koy nandale lu mooy ne ci géejam la ko jëlee ba yàlla de yàlla ba keroog muy wal bëftu bi kon moom mooy aji séddale yaa koon bi ki nga xam ni lépp ci loxoom la nekk ku mos moo la mosal bu fekkee ni ku yewwu nga yow yow nekkal ci ronam te bëgg ko te déggal ko loolu bokk na ci sababu jotaay bii waaye ñi ngi sant yàlla di kañ di bakk di bégee di ndamoo di puukarewoo saa su ne ki nga xam ni moo tax ba ñu xam xaqiqatan kan mooy Maulana Abul Abbas Cheikh na Ahmad Tijani njëriñam barkeem ay leeram ay mbootam xemem looñu ko bëgg loo ko topp loo ko muy Maulana wa wasilatina ila rabbina Baye Barham Abdallah ñu ngi leen di nuyu nuyug lislaam di ñaan jàmm ñépp a ko soxla ngërmande borom bi ak barke bàyyi nee na barke rek a takku sàkku leen barke muy nuyug lislaam di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla dotti ci képp kenn koo xam ni mi ngi si jotaay bi yàlla na ko tàllal ndaxte mbaaxam toll na nii waaye njëriñam toll na nii ci képp ku naan ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñaan yàlla jotaay bi yàlla nañu ko yàlla nangul yàlla na doon loo xam ni daf ñuy takkee ak mawlaana abul abbas cheikh na ahmada tijani radiallahu taala bi tax ñu samp jotaay bi waaye di ko jaarale ci ki nga xam ni moo ñu ci jëriñ di mawlaana cheikh al islam haj ibrahima ñas ñi ngi sant yàlla bu baax di ndokkeel ñépp di gërëm ceewaayu Cherif Hamza te mu fi jóge léegi waaye di kontaan trop ci ceewaayu Cherif Hadi Neema mu ñëw fekkale suñu jotaay bi waaye di kontaan lool ci teewaayu Chérifa Adama fay mi nga xam ni moom mooy marraine d'honneur u Basar mën naa wax ni mooy yaayu Nuurul Basar di ku baax ku yaatu di saalixaat di ku oyof ku sobre koo xam ni xëccoowul dara deretu shérifam bi xeeñu ko waaye lenn rek moo ko itteel te moom lay xeeñcu saa su ne muy mahabatu Mawlana Cheikh al Islam Ibrahima Niass ci loolu rekk lay xëccu te ñu xam ko lool di ko ñaanal yàlla wér di ko ñaanal yàlla gudd fan di ko ñaanal yàlla sutura bu sax dàkk suñ ko gisee bég suñ ko déggee bég ku ko gis wax ñu ko ñu bég ku ko dégg wax ñu ko ñu bég loolu bu amee dara lu muy firnde rek mooy mbëggeel gi ñu ko bëgg te bëggeewuñ ko dara lu mooy dellu ci boromam ndax nit dafay ittewoo dafay soxla koo xam ni bu ko xoolee rek dana erese def safaan wala mu eresé wax safaan te moom bokk na ci jaamu yàlla yooyu nga xam ni du ma ne man rek waaye képp ku mu jëflanteel rek danga ragal mu dégg la wala mu gis la ci safaan kon kooku nga yëg ko wala nga ñàkk koo yëg sa murabbi la kon Chérifa ñi ngi lay ndokkeel ci sa mbaax man bi ma la gisee sax damaa jaaxle wallaay fi ma toog comme bi yorewuma ko El Hadj ma ko yore parfois ma ne ko ma xool di xool heure dama jékki-jékki rek gis fa wave bu am solo kenn yónnee ko ne sedd la part de Chérifa Adama fay waaye yow ñu war la teral war a sàkku barke ci yow ngay yónnee sa alal di ñu ko jox te noonu lay def Taïba Niassène noonu lay def mawlidu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon da ngay xam ni kii jëflante wut ak yow man dars laa ko jàppee ki ngay jëflanteel xam na ko xam nga ko xam na boppam yàlla nañu wuutu ci yow bàyyi rek nga bëgg moo tax nga def lii sa maam Seydina Cheikh rek nga bëgg moo tax nga def lii sa maam rasulullahi sallallahu alayhi rek nga bëgg moo tax nga def dañ naan laa xarwa ñun de ñi ngi kontaan bu baax ci yow ñi ngi kontaan cerise sur le gato laay wax ci teewaayu Cheikha Mariama Niass bint Maulana Cheikh al Islam El Hadji Ibrahima Niass Seyda ñi ngi lay wax wala sax yaa war a dalal gan yi parce que lii yëpp sa bàyyee ko waral ñun duñ ci dara ñi ngi ziyaara Maulana Cheikh Ibrahim ci yow di ñaan nga nangul ñu ko yéen ngeen teew ñu xool leen ngeen xool ñu rek loolu doy nañu teraanga kërti kërti gi yëpp ñu nekkee bëgguñu Seydina Cheikh gërëm ñu bëgguñu yonent bi sallallahu alayhi wa gërëm ñu dana xaw a diis waaye ñun doyloo nañu ngërmande Maulana Cheikh Ibrahim bu ñu gërëmee rek obligatoirement par force na Cheikh gërëm bu ñu gërëmee rek obligatoirement par force yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm ñu bu ñu gërëmee obligatoirement par force yàlla gërëm ñu toujours dama koy joxe misaal ci darsu yi bu ma bëggoon charger sama portable duma fi jéggi prise bi naan maa ngi dem ci compteur u duuta sekk bi ne foofu laay charger suma portable kon bu boobaa waane moo ma jàpp ak ñeme lu metti te lu ma neex duma ko fa am sama portable dana lakk lakkaale ma sunu prise nag ci péew yàlla bi ci bunt ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci Seydina Cheikh bàyyi ñas la kon ñi ngi ziyaara Maulana Cheikh Ibrahim ci yow toog bii nga toog ak ñun rek firnde la ni bàyyi nangul nañu jotaay bi ñu ngi lay ñaanal gudd fan gu ànd ak wér yéen àdduna bi yépp a leen soxla foo leen teew ci jaamu yàlla yuy ut yàlla te dëggu ci seen utin bi su seen xol lëndëmoon su seen xol tilimoon xol bi dana leer xol bi dana set lu tax du de waaye ki nga xam ni feeñu waay ngeen ci ñoo ci moom muy Maulana Cheikh Ibrahim radiyallahu taala ñi ngi lay wàccee sa wàccuwaay olof day faral di wax ne bu lëg lekkee alom na ko gërëmee coy suñu jotee ci yow si teewaay bu barke bii nga xam ne ñun ñëpp mën nañu màngal yiw fajal ñu ci sunu aajo ñu ngi koy gërëmee sunu bàjjen di soxna Aminata si ñu gën koo xam ci bàjjen ki ne si yàgg nañoo defal teraanga sama soxna su macha allah bu am njëriñ bi ku baax ku taaru kii di Sayda Mariama Ñang doomu sëriñ Ahmad Daam di sëtu Cheikh Ahmad Boucar Ñang di sët ci maam abdu Ñang su ma ko gisee ba bëgg ko ci loxoom la jaar moo ma ko wan ma gis ko ci ñaari weer ñu takk ko kon loolu danañ la ko sante di koo xam ni daf ñu accompagner lool ci liggéey bi parce que c'était pas évident di gërëm suma teewaayu ndijaay Omar Gala Samb mi ngi fi du ñu deñ di ko gërëm parce que ñun fépp foo xam ni yëngu nañ ko ci lislaam rek danañ ko fàttaliku moom parce que am na jamono joo xam ni bu nekkutoon sunu wet ci ay conseils yu rafet ci jàppale ci bépp anam amaana ñu nasaxoon wala ñu découragé kon ñi ngi ci leneen waaye ki nga xam ni moo la tette moo la tingoom ba nga ko soxlaa te ñu bëri waroon koo mën a def wan la ginnaaw wallahi loo mën ci am war nga di ko ne jërëjëf ndijaay ñi ngi naan la jërëjëf di kontaan bu baax sa teewaay di ñaan yàlla guddal sa fan wéral sa cër ñi ngi sant yàlla ci kilifa yi nga xam ni ñi ngi teew ci jotaay bii dama ne ñëpp ay kilifa lañ ñoom ñëpp ñi ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla guddi gi la mu làmboo ci ngëneel la mu làmboo ci barke la mu làmboo ci yiw yàlla bum ko moy Mawlana Abul Abbas Cheikh na Ahmad Tijani radiyallahu taala anhu moo dénkaane woon Cheikh Amadou mi ngi koy wax sànq mu ne law alima machara tijaniyina ma fi hazihi layla min annafahaati wal barakaati wal fuyudaati wal xayraati li taxadu aydan bu fekkee ni bu fekkoon. njaboot gi maanaam ñi ma njabootee te ñuy askanoo ci tarixa tijaan xam nañ ngëneel gi nga xam ni moom la guddi gi làmboo di guddig laylatul katmiya ci ay xéewal ci ay barke ci ay bëbbal yu tukkee ci péyu yàlla bi ci ay teraanga ci ay mbóot kon ñoom ñépp danañ jàpp bés bi guddi gi def ko muy bésu fet kon ñi ngi sant yàlla bés bii bésu fet la ci ñun booboog léegi def na fukki at ak juróom kon teraanga la bu rëy lépp loo xam ni Seydina Cheikh lim na ko ci yàlla bum ñu ump yàlla bu mu ump suñu jaboot ñi baax dañoo xencu mbaax ba far baax lii xencu mbaax la te di ñaan jotaay bi yàlla nañu takkeeg Mawlaana Abul Abbaas Cheikh na Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu mu mel nii Cheikh Amadou jiitu na ma ci kàddu nuyu kilifa yépp ñoom ñépp maa ngi taxawaat ci làmmiñu Cheikh delloo wat leen njukkal sant leen gërëm leen ku wal mburu rek tudd dëkk Cheikh Abdourahmane Ndawal Karim jërëjëf ñi ngi lay jaajëfal ci sunu jëmm ak ci sunu làmmiñ waaye ñi ngi lay jaajëfal ci turu kuréel bi nga xam ni foofu nga soqeekoo te bokk fa muy nuurul basar waaye di la jaajëfal ci làmmiñu mboolem taalibe Maulana Cheikh Ibrahim yi ci làmmiñu mboolem taalibe Maulana Abul Abbas Cheikh na Ahmad Tijani yi waaye ci làmmiñu képp ku naan ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah liñ lay ñaanal rek mooy yàlla na la cat seexlu lépp loo xam ne yaa ngi koy def wallahi tallahi boo wéetee di nga xam ne du sa pexe du sa doole waaye bàyyi la roof mbóotam rek mbóot boobu yàlla bu mu teggeeku ci yow ba mukk ñu ngi ñaan xol bi yàlla na ko yàlla gën a yaatal gën ko sellal di la dimbale te bul ñàkkati ba mukk dotti la ay milliards bu naroon ñëw ci man ak ustaas ñeme naa ko wax yàlla na wàcc ci yow parce que man bu wàccoon gaw ma ni sax dina ko tal ba ci ba naan dama ciy dimbale doomu aadama wala kenn laay dimbale yaakaar ni dimbale naa ñëpp waaye xam naa ni sa xol li mu attan ci mbaax ak def lu baax man yàlla mayuma loolu kon di la ñaanal waajib la ci ñun tu fais tu fais notre fierté ñi ngi gërëm délégation bi jógee Kër Baay Jëppal Seydi Babacar ak Seydi Mokhtar Niang jiite ko ñëw en tant que euh, bureau ansaaru diin loolu tamit lu mag la ci ñun saa ñu defee jotaay ñoom dañ leen fay gis di gërëm ñëpp bàyyiwuñu kenn ku ñu tuddut sunu làmmiñ mbooloo bi képp kenn ku fi toog ci quatre vingt pour cent xam nañ la waaye nañ ñu jéggal rek ne ñi ñu lim yóbbuwaale nañu géew ñi ñu limut ku ñu limut ci sunu làmmiñ tudd nañ la ci sunu làmmiñu xol maa ngi daaneel sama xel na yar ci soxna faatu di suma xarit suma wóllëre man ak Cheikh Abdou ak ñoom soxna yandeeg ñoom ñëpp mu ngi fi teew sunu mbokku taalibe murit la waaye man gëm naa ni am na yenn mbokku taalibe yi nga xam ne ñi ngi ci daayira bi sax moo leen gën a fonk bës bi te moo leen gën a mën a jëmmal bés bi chaque fois day laajte di xool mbir yi fan la toll bi Cheikh Abdou taxawee fii ne dañu war a yóbbu affaire bi grand théâtre déwén ku nekk na joxe un million buy nekk ci dimension yooyu moom dafa génn rek waaye murit murit jàmbaar rek ma téléphone ne ma sëriñ bi déwén man maay njëkk a joxe un million ma ne ko Cheikh Abdou day nekk ci yenn station spirituelle yoo xam ne da nga ko ciy bàyyi rek buy buy buy samandaayu foofu danga ko fay seetaan rek waaye nga xam ni kii lu mu dëggal la lu mu yéene la waaw loolu nag bu wàlloon tuuti mbokku taalibe yi ci loolu dana baax parce que dañoo toll ci jamono joo xam ni wax defarut dara sëriñ Mbay nee na wax luy amal wala amal rek foofu soxla nañu ko bu dee théorie nag mën nañ ko lool waaye dafa jot pratique ñu dem ci parce que li ñuy xaar dafa rëy la défi est majeur ñi ngi nuyu tamit sunu jigéen soxna Aida Babacar ak njabootam ñëw nañu di nuyu sunu conseiller spécial muy sunu papa Cheikh Ahmed Tidiane Camara euh, di conseiller technique maire gore waaye di notable fële ca Foundiougne di ko xam ni Sénégal xam nañ ko surtout dans le milieu sportif di nuyu Cheikh Ousmane Diack sunu mag. sunu xarit sunu conseiller di nuyu Cheikh Issa Ba président Ansaroudine bu département bu funjuñ di nuyu ñëpp defe naa bu ma ko tënkee foofu rek danañ ma comprendre danañ ma jéggal temps bi ñu desee bëriwut noonu te dama ne du ma weesu une de temps baaba jërëjëf ak waa table bi baaba bu ñu démarré woon noonu du ñu am force dem dafa am loo xam ni di leen déglu di bàyyi bàyyi di wax moo ëpp solo waaye comme ñot ñoti mënta ñàkk ngeen sol ñu tuuti essence ñu xuus dana ci baax Seydina Cheikh ku lusut doo mën a waxtaan ci moom waaye ku yi tamit doo waxtaan ci moom kon dangay ngay diggu doomu dañ lay chauffé parce que ànd ak sa xel naan yaa ngi waxtaan ak yaa ngi waxtaan ci Seydina Cheikh doo dem ndaxte xel du ko waxtaane da ngay ut connexion am paas bu doy war a mën a xuus nag xuus boobu du yaay xuus dañ lay tëbb rek ngay dem li ñu nar a waxtaanee muy tarixa tijaan Seydina Cheikh mahabatu Maulana Cheikh Cheikh na Ahmada Tijani yooyu yëpp mooy lan seen njëriñ seen ngëneel seen jeexital yooyu dafa am solo xam nga. Mawlana Cheikh Ibrahim dafa jàngale mu ne wilaya ñaar la wilaya xamma ak wilaya xassa wilaya xamma mi ngi tàmbalee ci yonent yàlla Adama jeexee ci yonent yàlla Insa wilaya xassa tënkaat na ko ñaar sax waaye damay wax généralement pour dem. kooku mi ngi tàmbalee ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ci mawlaana abul abbas cheikh na ahmad tijani radiallahu taala lu tax mooy xaatimil awliyaa ci wilaaya xàmma bi seen particularité mooy dana am góoru yàlla mais du ñu am tarixa du ñu am mbooloo bu ñu yar ci wilaaya xasta danañ am mbooloo danañ am tarixa waaye gisoo dafa ne ci Seydina Cheikh la yem nga nekkoon ñi nekk ci ginnaaw Seydina Cheikh ñooñu lan la te pourtant ay wàlli wàcc nañu loolu daf lay firil maqaama xatmiya bi loolu firiwut ne moo tëj wilaaya gannaaw Seydina Cheikh wàlliwu dootul am saal bi dafa fees dell ak ay wàlliw waaye dafa firi ne fi mu yegg ci wilaaya kenn musu faa yegg te keneen dootu fa eggati moo tax mu doon xat xatmul wilaayati mooy ki nga xam ni moo kaste wilaayal muhammadiya radiallahu taala anhu léegi nag bi nga xamee ni sëriñ si tàmbali nañ góoru yàlla yaa ngi juddu nubuwa dem na léegi wilaaya dafay tijjeeku ci la ñu commencé gis gaa yi di nekk ci mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaxte al awliyaay warasatul anbiyaay ñoom ñooy continuer ñoom ñooy continuer mission yonent yi ci lañu dem ba ci biir Seydina Hassan Seydina Alioune mooy premier sufiyanke ndax li nga xam ni moo koy firil mooy li yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ana medinatul ilm wa alun baabuha man may dëkki xam-xam waaye alun mooy bunt bi loolu yaa ngi ciy déggee gannaaw man aluna fi sut waaye bu fekkeen da nga koy tënk ci zahir Seydina Alioune bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon génn àdduna Seydina Alioune mokkalutoon alquran te bëri ñu mokkaloon alquran te moom mokkalutoon alquran bu fekkee ni ba léegi danga koy tënk ci zahir ba léegi ci hadis yi ñuy solo Seydina Alioune ci saaba yi da nga naan moo ci gën a néewle te yonent bi waxam du teppeeku kon fan la leen ëppee xam fi mu leen ëppee xam-xam mooy fi mu leen ëppee fattu ci yàlla njëkk leen ubbeeku ci yàlla te loolu li ko ko may mooy dafa wéet ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bëgg nga jox ma loo xam ni bu ma ci langaamoo danaa am cër ci suma borom mu ne ko Seydina Aliou del wax laa ilaha illallah Seydina Aliou ne ko yaa rasulullah xanaa déggoo li ma la wax laa ilaha illallah ñu dul jullit sax ñi ngi koy wax mu ne ñi ngi koy wax waaye xamuñu ko mu ne ko sey Alioune waxal laa ilaha illallah Seydina Alioune ne laa ilaha mu ne ko loo yëg mu ne ko ma dara mi ngi koy tarbiyal mu ne ko gëmmal nga wax laa ilaha illallah mu gëmm wax laa ilaha illallah mu ne ko loo yëg mu ne ko ma dara mu mel ni lu ko gëdd fekk mi ngi koy jës bu pour tàbbil ko ci péyu yàlla bi Seydina Alioune waxal laa ilaha illallah naalu Alioune ne laa ilaha illallah rek yuuxu ne raaytu rabbi bi ayni qalbi fa qultu la shakka anta anta gis naa yàlla ci samay bëti xol amul sikk amul sàkk jàkkaarloog yonent bi ne ko yow la yow yonent bi day yàlla waaye du keneen it kon foofu la tàmbalee mu yar ci doomam Seydina Hassan Seydina Hassan ci càllaleem ci la Mawlana Abul Abbas Cheikh na Ahmad Tijani jóge cheikh abdou xaadir jeylaani càllaleem mi ngi jógee ci seydina useyn seydina asan téere yu bari dañoo indi ne mu yar ci euh, mu yar ci euh, habibul hajami waaye man damay d'accord ci ne njëkkewul ci habibul hajami waaye mi ngi njëkkee ci asanul basri lu tax parce que asanul basri moom mooy ki nga xam ni seydina alune karamallah waccaxoo moo ko yaral boppam balaa muy dem ci habibul hajami mu jóge foofu dem ci maxruuful xarqi maxruuful xarqi jox ko sirru saqati sirru saqati ndijaayu imam junayd la sirru saqati jox ko imam junayd imam junayd ci moom la tasawuf ubbeeko moo tax ñu bari dañuy juum yaakaar ni ci moom la mbir yi tàmbalee ci Seydina Aliyu la tàmbalee imam junayd mbir yi continuer di dem di dem di dem di dem ba yegg ci Chazili Chazili moomu képp ku miin tariqa tijaan ak histoire tariqa tijaan di nga gis ni ba Seydina Cheikh doon yà doon yootu maqaama utbaniyatul uzma kii nga xam ni mooy Seydi Mouhamadul Kurdiyu daf ko waxoon nekko ko nii man gis naa nga jot maqaama imaamu Chazili waaye jot na lu ko ëpp sax imaamu Chazili moomu nag. moo jox kii nga xam ni mooy abul abbas al mursi abul abbas al mursi mooy kan mooy kooku nga xam ni nee na bu ma xefee xippi jàkkaarloowu ma ak yonent bi sallallahu alayhi wa ma génnee sama bopp ci jullit ñi loolu loo ciy déggee dafa amoon fattu bàyyi di ñu wax bi bi chrétiens yi doon wax naan gis nañ yonent yàlla Insa wala gis nañ mar yi mu doon coow lu rëy bàyyi ne xanaa xamuñu ne ñun fu ñu toog ñu ngi jàkkaarloog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku nag da ngay am fattu ci yàlla pour mën koo gis donc ga gis nag abul abbas al mursi moo jax kan moo jox kii nga xam ni mooy ibn ata allah a sakkandari mooy sëriñam jox kii nga xam ni mooy imam bu seyri bi nga xam ni moo bind burda bi te fan yaa ngi xeeñ muy rabbiyal awal fi ak ñeent fan ñu commencé tax ni atu rabbihi xool yi dundaat ci yàlla ñu amaat ndollal boo xam ni macha allah mënuñu ko jëlee lu mooy ci bunt ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais ci ron keppaar ak Mawlana Cheikh Ibrahim nga gis Abul Abbas al Mursi ñaari punkal yooyu mooy seen sëriñ muy imam Busayri ak kii nga xam ni mooy Ibn Ata Allah as te da ngay xool kii nga xam ni mooy Ibn Ata as-Sakandari moo bind li ñu tuddee les les les hikam hikam boobu Seydina Cheikh jàngale na ko. jàngale na ko Mawlaana Cheikh Ibrahim jàngale na ko sey na Cheikh yamut foofu nee na bu fekkoon ni dagan na ñu jullee beneen téere bu dul alquran kon moom dana jullee lenn ci passage hikam bu ibnu ataala Sakandari nga gis abul abbas ar mursi gis nga doole wàlliw yàlla ci ay taalibeem nga koy xam abul abbas al mursi dafa yar ibnu ataala Sakandari ci tasawuf mu jeex ci tàkk fees ci dell am ci cër kii nga xam ni mooy imam yi mu yar ko ci mahabatu rasulullahi sallallahu alayhi wa nga xool ñoom ñaar ñépp Seydina Cheikh barkeelu na ci seen mbir Mawlana Cheikh al Islam Haj Ibrahima Niass barkeelu na ci seen mbir ndax xikam boobu ak burda bi jël nañ ko di ko barkeeloo te ba léegi moo wéy ci seen njaboot kon ñooñu duñu duñu ñu ndaw noonu la mbir yi di demee di demee di demee di demee mais càllale bi ma tudd jëlee ko ci Seydina Hassan yeggut ci Seydina Cheikh particularité Seydina Cheikh laa leen bëgg a wax moom naa ne wut foofu de gars yi joxuñu ko de moom xam nga kan moo ko jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jox boobu rasulullahi jox ko nag daf ñuy firi waxul daf ñuy firil waxu Maulana Cheikh al Islam Hash Ibrahima Niass mu ne boo gisee par parloo ñu ne doole ji fan la nekk. xoolal fi rasulullahi sallallahu alayhi wa nekk foofu la doole ji nekk kon moo leen mën ñoom ñëpp moo tax mu ne kullu suyuuxi aqazu anni min asri saabati ila naqi fi suur sëriñ sépp ci man lañu jële ba yàlla ba jamonoy saaba yi ba keroog yàlla di wal buftu bi moo Seydina Cheikh foo nekkoon kon nga gis ni moom particularité mooy yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko ko jox jaxran wa yàq zatan moo ko jox tariqa tijaan te kii nga xam ni mooy Cheikh Omar Fuuti yu taal di xutbul Fuuti duggoon na benn xëlwa bu metti boo xam ni dafa bëggoon am yoonu boppoon pour jëriñ ci jaamu yàlla yi mu def ko ay at gannaaw gi ci la ko yonent bi sallallahu alayhi wa feeñu ci gént ne ko bu fekkee ni sa yoonu bopp nga bëgg mën nañ la utal yoon jox la ko waaye na nga xam ni dinga nga bëri mbooloo waaye du ñu tënku ci sunnas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko ah yaa rasulullahi man sama coono bi yépp du man ma sauvé waaye sauvéel jaam yi tamit ci la mu ne ko ah yoon yi yeggale ci yàlla dakk na yow nag yaay tànn yi précédé bi nga xam ni moo la ci soob kon nga nekk ci moom tamit mu yeewu loolu ne ko yaa rasulullaay mu ne ko labbayka mu ne ko tànnal ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko tànnal naa la tariqa tijaan mu ne moom mësta dégg tariqa tijaan ci dundam musul dégg kuñ naan kii tijaan la wala lii tijaan la nee na ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la njëkkee dégg tiijaan tariqa tijaan waaye yonent bi yamut ak moom foofu dafa ne ko fa innaha tarixati wa tariqatu anbiyaai min qabli wa tariqatu ashaabi wa tariqatu ndax tariqa tijaan mooy suma tariqa mooy tariqa yonent yi nga xam ni ñoo ma jiitu woon mooy tariqa samay saaba looloo tax taalibe Seydina Cheikh daganut ci moom mu dem ci xabru bépp wàlli benn wàlliw yàlla ne daf fay ñaan wala mu fay tëbbu lu mooy ci saaba yi wala yonent yi jiitu parce que ñoom ay tiijaan lañu moo tax mu ne ko mooy tariqa sama njaboot kon nee na foofu la njëkk a déggee tariqa tijaan kon yonent bi moo ko joxoñ tariqa tijaan lu yonent bi joxoñ lu yonent bi doyloo kooku ñun ñëpp la war a doy Cheikh Omar Foutiyu Tall ginnaawam gu yaatu googu xam-xamam bu rëy boobu bëri na ku fi ber tarixa boo ñëwoon ci yoon boo ñëwoon ci moom dalay def taalibe wala taalibe taalibe moom mu nangoo bàyyi cër yëpp jàpp tarixa tijaan parce que xam na ni munul am lu ko faree kaw kon loolu dañ ciy xamee doole tarixa tijaan ñu tarixa boobu nag Seydina Cheikh ci boppam maamam bi mu ko koy jox mi ngi am 46 ans 46 ans la am muy ëdëdu waliw mu jox ko tarixa tijaan te bi mu koy jox tarixa tijaan daf ko jox istixfaar jox ko salaatul fatihi li ma uxlixa waaye indi wut laa ilaha illallah bi pour mu indi laa ilaha illallah bi il a fallu mu toog quatre ans après mu jox ko laa ilaha illallah tarixa tijaan mat lu tax joxu ko woon tariixat lu tax joxu ko woon laa ilaha illallah ndax xutbu jamono ba woon Abdul Karim Samma mi ngi woon Medinatul sey na Cheikh gise woon na ak moom te moo yore woon mbootu laa ilaha illallah parce que xutbu bi moo koy téye léegi il a fallu ñu bàyyi ko ba mu dee ñu doog a jël mbootu laa ilaha illallah boobu jox ko Maulana Abul Abbas Cheikh na Ahmada Tijaan tarixa bi mat foofu la yéegee ci maqaama xutbaaniyatul uzma à l'âge de cinquante ans boo demee ci téere kii nga xam ni mooy Seydi Aliyun Harazimi mi ngi ko fay wax ne Seydina Cheikh mi ngi yéeg ci maqaama xutbaaniyatul uzma à l'an mille deux cent après l'hégire fekk mi ngi am juróom fukki at ça n'a rien à ak li nga xam ni mooy xatmiya ça n'a rien à ak li nga xam ni mooy katmiya loolu bi mu amee 64 ans la ko jot la jot xatmiya mu tegaat ci 36 jours jot xatmiya après dundu ba am 80 ans doog a wuyu ji borom. mooy kooku nga xam ni moo wax ni ixtalafat al sulukum wal ahdu mutahidun xaqan li rabbi alhamdu ñi weex ñi jaune ñi xonq ñi ñuul ñoom ñëpp raamal nañ ma ñëw fekk cinéma ci dëgg bi nga xam ni ci laa nekk. rab rabbi an yut xuma ëdd yi kullal wara wa yaxmuduuna sëx yi yow yàlla njub gii nga ma may njub gi du dara lu mooy tarixa tijaan te bàyyi firil nañu ko ci biir waxtaan bi dana feeñ njub gii nga ma may maa ngi lay ñaan nga may ma ma tàllal ko ba mu wër àdduna bi wërngal këpp ba ñoom ñëpp ñu gërëm sama jéego moo tax jërëjëfee bàyyi warta jub booy sunu nopp jërëjëfee bàyyi donc mu ne maa ngi leen di laayee biir eh waaye nañu déglu lan la ñuy bàyyi di laayee biir mu ne dem leen ngeen jàppi tarixa tijaan xam nga nit bu la nee demal nga def dara soo ko ñemee danga naan ko lu tax ma koy def mu mel nii da doon xaar réponse boobu mu ne tarixa maxdil fadli wa ridwaani tariqa la boo xam ni da nga ciy amee sell ak ngëneel ak ngërmande borom bi ngëneel dara la waaye sell ak ngëneel plus la ak ngërmande borom bi waa ñu bu day mel nii boo ko ñemee da nga naan ko yow foo ko teg bàyyi tontu la jiitu la balaa nga koy laaj aussi sa bi sunnati wal qur'ani ndaxte sampeef nañu ko ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak alquran te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo dénkaane woon ci euh, hajatul wida ne taraktu fiikum ma an tamastaktum bihi lan tadillu baxdi kitaaballahi wa sunnati kon tariqa bi ci kitaaballahi la ci sunnati moo tax sey Seydina Cheikh biñ ko laajee ndax xam danañ la duudal mu ne ah naam man danañ ma duudal ndegam yàlla bi ñu bind moo moyut ñu duudal ko yonent bi sallallahu alayhi sang mbindaafoon yi moo moyut ñu duudal ko kon kañ man danañ ma duudal mu ne buñ la waxee ne yow yaa wax lii ci tarixa bi wala yow yaa def nii wala nangam te gisatuñ la nan la ñuy def mu ne iza samixtum anni shay'an fa ziinuhu bi misaani sharhi fa ma waafaxa fa xuzu wa ma qaala fa fatruku buñ leen ne man maa wax nangam wala man maa def nangam mu ne jarta guddal jël leen ko ngeen peese ko ci màndaxam charia bu méngoowee jël leen ngeen jëfee bu méngoowut wudd suma wax kon ci lii la Mawlaana Abul Abbas ne kon radiyallahu taala anhu kon nga gis ni bàyyi loolu na njëkk a dénkaane su yamoon foofu sax danga naan waaw mais ba léegi dafa continuer bàyyi dafa am lu mu wax mu ne suñ ma laajee ana kan moo gën a tedd askan ci mboolem mbindaafoon yi bu boobaa dama leen di wax ni mooy ki askanoo ci abul abbas cheikh na ahmada tijani radiallahu taala anhu ba pare yamut foofu mu ne doy na ma puukare man Baye Niass ne taalibe cheikh doy na ma man Baye Niass ne taalibe la man buñ ma laajoon question boobu dama naan surafaawu yi waaye Baay waxut loolu de ki askanoo ci Mawlaana Abul Abbaas Cheikh na Ahmad Tidiane kon loo ciy déggee ngay shérif jolo wir de tariqa Tidiane ki nekk ci tariqa Tidiane te duwut shérif moo la gën moo la gën askan kon mbir mi day delluwaat rek ci waxu Baay su werante amee rek seetal ki gën a takkook yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te tariqa Tidiane da lay takkaleeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem na ba ne nii akbaru akbaru karamatin an yaqunu insaan muridan tijaaniyan karaama bi gën a boo xam ni yàlla def koy defal jaamam ñu ne ko bàyyi loolu mooy lan mu ne mooy mu jël jaam bi def ko muy taalibe Mawlana Abul Abbas Cheikh na Ahmad Tijani du waxantu de ces mots pèsent lourd sur la balance kon nga gis mu ne booy ut àndandoo sax booy ut àndandoo booy ut xarit booy ut soppe mi ngi koy wax foofu ci biir fa maddoxoo cheikhi awraadi mu ne utal ka xam ni dafa sopp dafa bëgg Maulana Abul Abbas Cheikh na Ahmad Tijani yamut foofu bàyyi ba léegi mi ngi wax ne cheikhu Tijaani cheikhu turuuxi xabla u wala tarixata baxdahu wa cheikhi tarixati ila yawmi alqiyamati nee na Seydina Cheikh mooy sëriñu turuux yi ko jiitu woon xam nga loolu dafa doy war nee na mooy sëriñu turuux ya ko jiitu woon soo ko mënta dégg dellul ci waxu Seydina Cheikh boobu ne kenn du naan leer wala mu koy nandale lu mooy ne sama géej gi la ko jëlee ba yàlla de yàlla ba keroog muy wal buftu bi kuntu waliyan bi wilaayatun aarifan wa aadamu baynal maayi wa tiin nekk naa wàlliwu xam sama wilaaya fekk boobu aadama mi ngi ci diggante ba nag ndox kon sëy na Cheikh yàgg na fi kon nga gis ni tarixa boobu Maulana Cheikh Ibrahim dafa wax mu ne képp koo xam ni yaa ngi ci wala sax balaa Maulana Cheikh Ibrahim Cheikh na Ahmad Tijaan dafa wax mu ne képp koo xam ni jël na tarixa bi topp ndénkaane yi di laazim suba di laazim ngoon di wasifa kooku texe nga te texe googu du yam ci yow sa soxna bi nga takk texe na say doom texe nañu ki la may jabar maanaam say waajuru ñi la may jabar ñooñu tamit texe nañ ci sa texe gi la ñu texee mais à une condition ñooñu bañ a weddi wala diingat wala ayibal Maulana Abul Abbas Cheikh na Ahmad Tijaan ma ne la boo xam ne day yóbbuwaale géew ñu bëri radiyallahu taala anhu tarixa boobu nag ba léegi Seydina Cheikh Baay mi ñuy wax ci tarix boobu mu ne lahoo wirdun min alhaadi sama an kulli awraadi li ashyaaxin wa afraadin fa haazal wirdu aqnaani mu ne wird bii di wird tarixa tijaan mi ngi jóge ci aji jubalaakoon gi de yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam Seydina Cheikh waxaat na feneen ne tarixa bi man sax taalibe laa ci nee na man sax taalibe laa ci maa ngi am ci la woo wirdu damay ubbiwaat beneen parenthèse pour dëggal li Seydina Cheikh wax Seydina Cheikh lu tax mu ne taalibe la ci am na benn xista bu koy dëggal Seydina Cheikh dëggal na lii may wax nii kii nga xam ni mooy Seydi Ahmed Sukkayri ji dëggal na ko tamit Mawlana Cheikh al Islam Haaj Ibrahima Niass ne Seydina Cheikh juróom benn nit la mës a ijaazaal ijaaza itlaq ci dundam juróom benn nit la ijaazaal ijaaza itlaq ci juróom benn nit yooyu ki ci njëkk mooy Seydi Alioune Harazimi al Barada al Fasi ki ci topp doomam la Seydi Abu Yaqda ki ci topp Seydi Alioune Tamasini ki ci topp Seydi Mouhamadul Mishri ki ci topp Seydi Abu Nasiri al Bannaani ki ci topp Seydi Mufaddal Saqaat mooy juróom-benn wala Seydi Mufaddal Saqaat boobu nag am na bës mu am lanteeg Seydina Cheikh Seydina Cheikh mer ne dagg naa la ci tarixa bi dafa tëdd guddi maamam feeñu ko ne ko ko ci tarixa bi su fekkoon ni mbir yi ci loxoom la nekk kon da koy dog loolu danaa profité tontu benn question bu Malick posé woon ne ki nga xam ni mi ngi ci mbir yi mu xaddamam ñëw ne ko dog naa la moo xam da koo jox ijaaza moo xam da koo jox wird ne ko dog naa la mu xaddam boobu ba ko joxe mënatu koo dog parce que ba mu ko joxee du moom moo ko jox du sax Seydina Cheikh du sax yonent bi mais yàlla la kóllëranteel inna alladina yubaayi'uunaka innamaa yubaayi'uuna allaha yatullaha fawqa aydihim defe naa leer na Seydi Aj Malik bu yow mi jël yaa ci mën a dog sa bopp wala yaa ci mën a dugal sa bopp leer na waaye nañ ma baal am na kenn benn kilifa fii Sénégal su daan mere kenn ci taalibe yi wala ñu daan daw di ñëw ci Maulana Cheikh Ibrahim dane dog naa la ci tarixa bi wérut da gàtt àll wi rek wala amoo culture ci tarixa bi moo tax ngay tiit donc mu ne loxoo wirdun min alhaadi wird bii mi ngi jóge ci aji jubalaakoon gi di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te wird bii diri na sembaanam maanaam faree na kaw mboolem awraad yi nga xam ni suyuux yi amee nañ ko ak mboolem awraad yoo xam ni afraad yi ñu punkal yi amee nañ ko wird bii faree na leen kaw waaye li ma ci gën a neex mooy li mawlaana cheikh ibrahim tëjee abiyaat bi fa haada al wirdu wird bile man Baay Ñas doy damay dégg Cheikh Abdou Aziz Ndiaye yal na yàlla guddal fanam jàmbaari faydu mu ne lu baay doyloo doy na ma ku baay doyloo doy na ma kon lu baay doyloo ñun war nañoo doy sëkk xam nga bu yemoon foofu sax dañ naan doy na waaye xoolal dama nangu ci làmmiñu professeur Barham Diop man je l'avoue et je l'assume c'est mon idole dans cette fayda là professeur Barham Diop du wax ci bànneexu bakkem lu mu la wax mën nga koo vérifier imam assan seede na ko nee na loo dégg professeur Barham wax rek dafay am dalil wér te du yo du waxtaan du neex ba mu yokk moom sax da koy faral di wax nee na li ngeen di yokk mel ni film soo leen nekkee ci jotaay boo leen teylu woon tuuti gëstu rek da ngeen gis lu gën a rëy la ngeen di inventé di ko wax mu ne bàyyi ëpp nañu koy yokkal dara am na suma yenn mbokk bokkuñu ci tarixa bi nee nañ sëriñ danga koy fenal danga koy sosal pour taalibe yi gën a jàpp gën a dëgër kooku de du tarixa tijaan on fait pas de promotion donc ma ne bu yemoon foofu sax ça waaye xoolal professeur li mu wax ne naa bàyyi li mu mujjee bind li mu mujjee wax ci wasiyaam li mu ci mujjee wax gannaaw loolu waxatul dara bindatul dara loolu la tëjee te baay bi muy bind lan la tijjee tarixa tijaan la dénkaane bi muy mujjee bind bi muy mujjee dénkaane loolu la tëjee uusikum bi taqwallaahi fii sirri wal jahri wa wa wa fil wa bil tarixa na maa ngi leen di dénk ragal yàlla bàyyi loolu lañu dénk ñun ñëpp nañ ci bàyyi xel kuy faat say waxtu ragaloo yàlla kuy faat say wasifa ragaloo yàlla kuy sàcc ragaloo yàlla kuy fen ragaloo yàlla kuy jaxase nit ñi ragaloo yàlla nit ñi nga ragal seen làmmiñ rek naan bu ma defee nii buñ ko gisee danañu wax may ragaloo yàlla yàlla ku nëbbu la waaye ku feeñ la ragal yàlla ci lu nëbbu ragal yàlla ci lu feeñ loolu la sëy na cheikh dénkaane taqullah wa imtisaalul amr wacci nax yi fi zahiri wal batini min xaysu yardallaahu la min xaysu tarda ragal yàlla du dara lu mooy topp ndénkaane yi bàyyi tere yi nga def ko comme ni mu neexee yàlla mais pas comme yow ni mu na neexee ci lu nëbbu ak ci lu feeñ loolu la Seydina Cheikh wax am na ñoo xam ni bu ñu weetee ñooy gën a dëng garabu yow bu nit ñi nekkee bu ñu gisee nit ñi nag ñooy gën a jub potulam loolu du ragal yàlla mu ne maa ngi leen di dénk ragal yàlla ci lu nëbbu ak ci lu feeñ waaye tamit maa leen di dénk ngeen mooy ci tariqa tiijaan lan la ci teg fa innahu kanzul lil ahyaai wal anwaat nee na nangeen xam ni tariqa tiijaan koom la trésor la richesse la teranga la ñeel képp ku dund waaye koom la trésor la teranga la ñeel képp ku dee kon bàyyi loolu la njëkk a dénkaane bàyyi loolu la mujjee dénkaane nangu naa ci làmmiñu benn mag ci tarixa bi dama ko njëkk dégg ci kaset loolu ma dem ci benn mag mu expliquer ma ko leeralal ma ko nee na bokkoon na ci dénkaane Maulana Cheikh al Haji Ibrahima Niass nee na bu uyujee boromam bañ koy suturaal nee na buñ ko dugalee ci kan bi. na loxo doomam bi mu tuddee Mawlana Abul Abbas Cheikh na Ahmada Tidiane mujj ci moom loolu bu amee lu muy tegtal lu rëy la kon ci noonu lay jëlee jugee ci tariqa Tidiane dem ci mahabatu Mawlana Abul Abbas Cheikh na Ahmada Tidiane radiyallahu taala anhu su fekkee ni li ma wax wér na ne une de temps laay def kon dese na ma douze minutes. Mawlana Abul Abbas Cheikh na Ahmada Tijani Mawlana Cheikh Ibrahim dafa dénkaane lu bëree bëree bëree bëree bëri ci moom ci ne nañ ko bëgg nañ ko topp nañ ko waxtaanee nañuy sonnee ay mbiram nañ koy liggéeyal nañuy tuur ay ronqañ di jooy ngir moom nañ ko liggéeyal nu raw ni fasu naaru góor di dawee ci course nañu jeex tàkk ci moom yamut foofu nee na moom resam bi sax mi ngi lakk ndax mahabatu Cheikh na Ahmada Tijani nee na ay faaram ñi ngi lakk ndax mahabatu Mawlana Abul Abbas Cheikh na Ahmada Tijani nee na nee na moom mi ngi dee ndax mëggeel ak Mawlana Abul Abbas Cheikh na Ahmada Tijani kooku ku muy sa sëriñ non seulement da koo wax waaye da ciy jiitu ñëpp radiyallahu taala anhu nee na alaykum bil muhaadasati fi chahni xatmi tijaani ma axbaabikum fa hiya afdalu min jamii al awraadi wa xusuusan fi ramadan baay nee na maa leen di dénk ndénkaane baay la dee leen di bëri li ngeen di waxtaanee Mawlana Abul Abbas Cheikh na Ahmada Tijani yéen soppe yi dee leen bëri li ngeen koy waxtaanee dee leen di dajaloo di ko tudd di ko wax te nee na waxtaanee abul abbas cheikh na ahmad tijani moo ëpp doole moo ëpp solo moo gën awraat yi nga xam ni moom la ñu nekk di ko def moo kan mooy seydina cheikh waxtaane ko mu gën sa laa ilaha lalaa yi ngay def waxtaane ko mu gën sa salaatul fatihi ma wax yi ngay def waxtaane ko mu gën sa istixfaar yi ngay def moo kan mooy seydina cheikh ci présentation bu gàtt mooy Serigne Baye Niass. nga gis waaye nee na dee leen bëri li ngeen koy waxtaanee ndaxte waxtaanee ko moo gën awraat yi ngeen di def moo gën awraat yi ngeen di def te Baye dëggalaat na ko feneen nee na asaadiqu fii tariqatina man ara allahu alwirda laazima akbar al asraari wa cheikha tijaani ayna sirri radiyallahu taala anhu kii taalibe dëgg ci sunu yoon bi kii taalibe dëgg ci tarixa tijaan bi mooy ki nga xam ni sa laazim sa wasifa sa xadara gëm nga ni amoo beneen askar bu ko faree kaw kaay ma jox la mbóot nangam kaay ma jox la mbóot nangam kaay jox la moon nangam bu wéroon kon ñu bari duñu dugg ci tarixa tijaan ku la nee mbóot bi maa ko am lii lay joxe boo ko laajee danaan diwa ma ko jox diwa ma ko jox diwa ma ko jox waaye mbuutu tariqa tijaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jox Seydina Cheikh jaxran wa yaqzatan boobu moo gën a foor lu faree ci yonent bi diri na sembaanam ci leneen lu faree wut ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne waaye nag na xam ni jëmmi mbuutu tariqa tijaan jëmmi mbuutu tariqa tijaan mooy Cheikh na Ahmad Tijani radiyallahu taala anhu xam nga Seydi Alioune Tamasini lu mu dénkaane nee na boo taqoo mbëggeel ak Maulana Cheikh na Ahmad Tidiane te mu wér ci sa xol gannaaw boo paree sa awraat yi nee na jarut nga yokk benn peru salaatul faatihi li ma wax jaru ko bàyyi démb maa ngi koy dégg ci benn waxtaan ci benn mbindam mu ne bëgg Seydina Cheikh dalay may xam-xam. boo xam ni doo ko jàng ci téere yi ba question bu la nit posé diñ ko tontu te loolu dafay wér loolu tamit maalaaji Abdoulaye dëggalal nañu ko nee na lii di xam-xamu tafsirul quran lii di xam-xamu aroot lii di xam-xamu euh, euh, euh, hadis lii di xam-xam lim lim lim jànguma ko ci kenn ñu ne ko ah sëriñ bi jàngoo ko ci kenn ba pare raw ci ñëpp noo def ba am ko mu ne bi barakati maulana abul abbas cheikh na ahmad tijani jàngal téere yëpp demal ci sëriñ sépp man ma bëgg Seydina Cheikh boo ñëwee ma jàngal kon rawante bi mi ngi ci mahabatu Mawlana Abul Abbas Cheikh na Ahmad Tidiane bàyyi da koo xam de moo tax mu ne li zaaka ximtum xaraaman min mawaadatihi taxta duuni zafaraatun kullu awqaati lan la ci teg axsamtu bi tuuri ana cheikha yaxmiluuni ma am daaka an hunayn kal qubaaraati xalifatullahi ramzul kawni ruuhu jamiil xalqi wa huwa la asrul lil wujudaati mubaraxul barxi muridu ruxuudin wa mumtirul muzini wa minha zul bariyaati lan la ci teg tilkal makaarima la axbaana min labanil tilkal wirasatu min ahlul arumaati radiyallahu taala donc nga gis Seydina Cheikh Baye mi ngi wax ne lidaaka ximtum xaraaman min mawaadatihi taxta duuni zafaraatun aw awxaati bi ma xamee ni daal njëriñ li mi ngi ci nekk ci ron keppaar ak Mawlaana Abul Abbas Cheikh na Ahmada Tijani ci laa man faddu ci lépp topp ko seeyal sama mbëggeel ci moom te mbëggeel googu foo ma fekk maa ngi jooy foo ma fekk maa ngi yëkkat foo ma fekk maa ngi onk ndax bëgg gi ma bëgg abul abbas cheikh na ahmad tijani radiallahu taala anhu mbëggeel googu nag mbëggeel googu nag di ko puus di ko puus di ko puus di ko puus ba seydina cheikh yan ko yan boo xam ni bàyyi nee na buñ ko njaroon doju Xunayn dafay mokk rumbax comme poussière fa la bàyyi sañee taxaw nag wax li nga xam ni moom la wax wa bil xaqaayiqi wa bil maarifi wa sirri sirri sirri wal xawaarif xamaltu sirra xaatimal wilaaya jamaxta bayna zawxi wa diraaya anshadani lisaanul xaalil jaari taxaddusan bi nafaatil baari imtalaat qawdu wa qaala xëtt nii maxlan ruwaylan xatmalak te bëtt nii boo bëggee Seydina Cheikh te muy dëggu ci yow mbir yi ñooy sotteeku ci yow ba da ngay sonn nit ñi dañ lay mujj yërëm kon rawante bi mi ngi ci mahabatu Maulana Abul Abbas Cheikh na Ahmada Tijani te mbootu Seydina Cheikh mi ngi rogalaat ci Maulana Cheikh Ibrahima ñas te Seydina Cheikh moo ñu ko waxoon alxalifatu fi aqsa ardin wa aqfa lawnin wa asabi zamanin yaati bil faydati ana dhaka fi daxsha sama xalifa mi ngi ci réew mu sori ci melo bu lëndëm buy ñëw dana ñëw ci jamono ci jamono bu jafe te buy ñëw day indiwaale loolu ñuy wax faydu critères yooyu yëpp dafa daje ci Maulana Cheikh al Islam Haj Ibrahima Niass looloo tax looloo tax looloo tax sunu mbokk waa Mauritanie utuñu xaalis utuñu dara maxabatu cheikh rek la ñuy wax maxabatu cheikh rek maxabatu cheikh rek parce que Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu ci zahir jóge na fi waaye ci baatin mi ngi fi damay defaat benn parenthèse bu ndaw ci kat mi yëbi rek xam nga Seydina Cheikh radiyallahu taala bi nga xamee ni wax na mu ne ak barani saydul wujud sallallahu alayhi wa bi bi am na dafa ne ak barani saydul wujud sallallahu alayhi wa sallam am na ni xutbul euh, euh, euh, maxtuum mu ne xibaareef na ma kan moo ko xibaaree mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne moom mooy xutbul maxtuum mu ne ko yow suma maam lan mooy xutbul maxtuum le pôle caché mu ne ko loolu xanaa dañuy wax rek li euh, Tidiane ibnu Baba waxoon wa baxda shahrin wala yaa lirtiha ila maqaamihi l azizi l muntaha maqaamihi l maxtuumin an kullil wara siwa nabii ma waraahu wara waaye maamam lan la ko tontu dafa ne ko le pôle caché maqaama boobu nëbb nañ ko mboolem mbindaafoonu yàlla yi ba mu des man mi waaye Tijaan Ibnu Baaba dafa ne gannaaw weer ak sullu ci ay fan bañ ko nattee 36 jours la gannaaw xat xatmiya ci la Seydina Cheikh yéeg ci maqaamaam ba maqaama bu tëtticc mboolem góoru yàlla yi maqaama bi nga xam ni nëbb nañ ko mboolem mbindaafoon yi moo xam nga doon yonent moo xam nga bokk ci ulul azmi mina rasul moo xam nga doon malaayika moo xam moo xam koo mënti doon maqaama boobu munoo cee xam dara ci la Seydina Cheikh taxaw ne ina lana martabatan tanaat fil ulwi ala qaddin yaxrumu zikruhu wa ifshaahu wa laysat hiya lati zakartuha lakum walaw zakartuha lakum la ajma al ahlul xaqi wal irfani alal xatmi fadlan amal siwaahu yàlla jagleel na ma benn maqaama boo xam ni faree na kaw mboolem maqaamaat yi te daganul daganul ci man ma wax leen ko ndax bu ma leen ko waxoon ñi nga xam ni ñoom ñooy waa ahlul xaq ak waa ahlul irfaan ñi nga xam ne ñoo sut ci géeju maxrifatu billah ñoom ñooy daganalar tuur suma deret ne man yéeféer la waxaat na feneen law af seytuhu lakum la ajmawul xaq wal irfaani alal kufri su leen waxoon mbóot bi nga ni moom laa yenu kon waa ëxlul xaq ak waa ëxlul dañ ne man yéeféer laa waaye sam waa ji dafa mel ni nànd na ko de bàyyi ñas wa samma wara al ëkkli maa law dakartuhu yuri u dimaa i man aqaalu mawaaniya am na loo xam ne mi ngi ci ginnaaw xel xel du ko peeg xam naa ko ci sama sëriñ cëy bu ma ko waxoon nee na kiñ ne moo ma gën a jege xam naa danañ wax sëriñ Alioune waaye danañ wax maamu Cheikh Ibrahima Jamil muy maa Ibra Fall nee ñoom ñoom laay wax ñooy dagana tuur suma deret moo bàyyi lal la xam am na fenn mu ne laa axtumu sirran laa yu baaxu li xayriya nëbb naa mbóot xam ne daganut keneen xam ko koo koy Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu donc nga gis mahabba boobu mahabba mahabba nga xam ni ëmbaloon na ko Seydina Cheikh loolu moo ko yéegee xam nga bu demee ba wax ara xubba cheikhi ti cheikhi ahmada tijaani qaatili xam nga bu ne dem naa ba gis ni mbëggeel gi nga xam ni moom laa ëmbal cofeel bi nga xam ni moom laa ëmbal ki kaste wilaayal muhammadiya mi ngi may rey waaw bu boobaa la logique voudrait nga ne ko bàyyi bàyyil mbëggeel googu waaye xoolal bàyyi fan la la tontu fële ci maani abil abbasi afna al maaniya wa afna maani shawxihi zal muaniya aba shawqu ila an yakuna mulaazimi wa qad tamat wa tan wa qad tamat ah wa tannaba xata sirta sakraana saaxiya walaw akwaani laa wala mutawaaniya ila an raaytu qutba ahmada ahmada wa xasara alwujudul kawni shayada baaniya xoolal njëlbeenu xasida bi kon la logique voudrait nga ne ko bàyyi lii niñ lay rey bàyyi ko man lu may rey ma bàyyi ko waaye bàyyi dafa ne munu koo bàyyi parce que mbëggeel googu dañ dañ ko mooñaaleeg moom te mbëggeel gi bañ ko mooñaaleeg moom mbëggeel gi dafa lànk nee na demuma radiyallahu taala wa ma zalika ala rabbi aziz alhamdulillahi rabbil alamin ala alihi wa ashaabihi wa man wala wa radiyallahu an xaatimi al awliya abil abbas seyxina ahmad bun muhammad tijani ورد تام عن ظاهب الفايدة مولانا الشيخ الإسلامي وبركة الأنام القائل أو جدني حقا لجبر الكسر فإنني وكيل سر سري borom xam-xam yi dañoo wax ne isa xadaral maa u batala tayamumi bu ndox teewee tiim daganut buñ waxoon buñ waxutoon ne njabootu Cheikh Ibrahima ñu ngi fi teew buñ waxee kenn ci muqaddam yi bàyyi teew na ñun lottu ngir wax ci seen kanam ndax Baay dafa wax ne muaziman li ahlihi jamian la siyama xaasatan kun mutian cheikh eh, ahmad tijaani al amin sama xarit sama soppe dinit nit koo xam ne eh, royuwaay la ci mbooleem koo xam ne yaa ngi jàkkaarloog Mawlana Cheikh Ibrahima te gisoo ko yaa ngi bëgg Cheikh Ibrahima te gisoo ko waaye man gëm naa ne boo ko toppee dana la yóbbu ci dëgg-dëgg Cheikh Ibrahima kon ñu ngi lay nuyu di jiital nuyoo bi suñu sëriñ suñu sang euh, deretu Mawlana Cheikh Ibrahima ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara di la ndokkeel di am mbégte lool teew nga teew suñu biir euh, ñu ngi lay ñaanal yàlla yal na yàlla guddal sa fan euh, te may la wér lool yàlla mën na ko yal na ko yàlla def sëriñ bi ñu ngi lay ndokkeel bu baax a baax sa waxtaan wi nga xam ne waxtaan nga Cheikh Tidiane ba nga ñaqee ba tooy xepp sëriñ bi dana wax ne bu ngeen ko fompul man ma jug fompal ko dëgg wane ne mu ne bu ngeen ko fompul moom dana jug fomp ko kon dëgg-dëgg sëriñ bi fa nga waxtaanee euh, te lépp loo wax rek teg nga ko si ay at yi yoo xam ne indi nga ay tur yoo xam ne boo demee si téer da nga ko fekk ku ñu ngi lay ndokkeel bu baax di gërëm Cheikh Abdourahmane Ndaw waxoon nga léegi ne mboolem jullit làmmiñu jullit yi gërëm nga ko waaye mboolem taalibe Cheikh Ibrahima yi ñun ñëpp ko amal ngërmaane ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla gën ko dimbale dama wax ne cadeau boo xam ne yàlla moo ko may faydu bi cadeau boo xam ne yàlla moo ko may faydu bi mooy ne lépp luñ ko jox mu jox ko baay ba jox ko loo xam ne joxuñ ko pour mu jox ko baay kon si Abdourahmane ñu ngi lay nuyu di la ndokkel di la ñaanal yàlla déggee naa si benn góor goo xam ne wax na ne ñu mel ni yow buñ bëri woon ci faydu bi muy suñu wayjur wax na ne ñu mel ni yow buñ bëri woon ci faydu bi duñ laajte ana mag ñi nga xam ne ñoo doon liggéeyal Baay Ñas ndax Baay dafa wax ne man araada siraatal mustaqima fal yaxtadi bikum kaa inan man kaana joxeñ naa leen juróom ñoo xam ne na leen roy ak kum mën a doon waaye ana juróom ñooñu dafa mel ni juróom ñoom dem neen waaye nag dafa wax am na ñoo xam ne ku leen jàpp gëm naa ne jàpp nga juróom ñooñu ndax Baye dafa wax ba muy dem London dee yi dafa wax ne diw fégeewu yaa ngi fi tariixa bi du yàqu faydu bi du yàqu diw boobu moom dee na léegi nag tariixa bi dafa yàqu wala faydu bu yàquwul kon gëm naa ne diw boobu mu waxoon ak ñum joxoñoon boo ci génnee si Ahmad Tijaan gëm naa ne euh, man nga wax ne euh, ndax man nga wax ne génne nga juróom ñooñu ndax dama ko topp lu ay at te xaw ma moom mooy kan di topp ay jàngaleem te xaw moom mooy di topp ay waxam te xaw ma moom mooy kan di topp ay yaram te xaw ma moom mooy kan moom moo pare si taalibeem lu bàyyi wax ne bu ma paree sama taalibe foo dem mën nga faa nekk moom dafa pare ci ay taalibeem moo tax jëlul taalibeem naj ko na ko bul xam diw bul fonk diw bul bëgg diw ñëpp gëmal leen ne ñoom ñooy Baye Niass te bu ñëpp nekkee foofu ku ñu ngi lay ndokkeel ci waxtaan wi waxtaan wi amul mu laaxasa waxtaan wi daal dëgg-dëgg dañ lay ñaanal yàlla xam-xam bii nga sotti fi waaye nag ñu ngi gërëm daayira Nuuru Basar lii ngeen def maa ngi okk léegi sëñ ñang mii na ko bu amee daayira bu ko def dee bëriwut bu amee daayira bu ko def bëriwut te man mën naa wax fii ci dagaar amul daayira bu ko fi def loolu moom ñeme naa kaa wax man xaw ma nag ba ne Saalum ak ba ne feneen man Dakar laa ne doxkat laa ndax ku ko defoon da nga ko wax waaw te lii ngeen def ci ay salaatul fatiha lii ngeen def ci laa ilaha illallah lii ngeen def ci jawharu lii ngeen def li ngeen def mën na téye kaw ni bi waxuma réew mii ñu nekk muy Sénégal kon dëgg-dëgg bu lii président bi bu ko yëgoon war na ñëw yokkal leen grade bu gën a rëy te amul garaat bu gën a rëy bu ngeen am muy bëgg Cheikh Ibrahima yal na yàlla saxalal leen ko ñu ngi ñaan yàlla yan na yàlla barkeel jotaay bi yéen ko fekkee at yu bëri ñu ngi jéggulu ci kàddu yi ñuy yëkkati ci borom xam-xam yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëfe Baye jërëjëfe Baye Niass ñooy sax di ko jàllale eh, ñoom dañ leen di war di ñaanal saa su ne yàlla jox leen ay matériel yu gën a sophistiqué yi ngeen yor yàlla tàggatal leen ay waruwaay yu mucc yoo xam ne fépp fu programme amee muy programme pii bi di ngeen mun a déplacé wu dem te du ngeen am benn jafe-jafe loolu nu ngi leen koy ñaanal yàlla ndax gis nañu taxawaay bu am solo gi ngeen di def ñun ñëpp dañuy toog suñu kër yi suñu salon yi taal suñu téléphone yi yéen ngeen nekk si naaj gi di filmer bàyyi seen njaboot bàyyi seen kër loolu yëpp ngir taalibe yi bég taalibe yi kontaan kon ñu ngi leen di jëfal bu baax ci liggéey bi nga xam ne ngeen koy def di liggéey Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu kon kàddu mbokk yi ñu ngi leen di ñaan ñu teewlu kàddu yi nga xam ne Seyda Mariama ñas bintu Cheikh Ibrahima Niass mi ngi ko ñu ngi ñaan mbokk taalibe yooyu nekk mbir yooyu si ginnaaw sëriñ bi nee na ne ñëpp déglu te ñu arrêté séddale bi yooyu nga xam ne yëfu taalee nii la nañ ko bàyyi ba ñu pare incha allah Seyda Mariama Niass bindu Cheikh Ibrahima nee na mi ngi sant yàlla di julli si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa Seyda nee na mi ñuy sant waaye mi ngi ñuy gërëm mu ne mi ngi nuyu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amin nee na koy indal indil nuyoo xalifa bi xaadimul umma Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass di ko indil nuyoo imam Cheikh Ahmad Tidiane Alioune Cissé di ko indil nuyoo Cheikh Mouhamadul Amin Baba Lamine Niass bi nekk fii Dakar di ko indil aussi nuyoo porte parole de la Fayda Tidianiya muy Cheikh Mahamadul Mahi bi nga siise bi nga xam ne démb rek ñoom ñu ngi nekkoon ensemble di ko indil nuyoo mbooleem njaboot ak Maulana Cheikh Ibrahima Niass yëpp Seyda Mariama Niass bii nee na mi ngi indi nuyoo boobu teg ko si loxo Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amin waaye di ko teg aussi si loxo Cheikh Ndoram muy Cheikh Abdou Rahman Al Karim Seyda nee na bés bii bu mu yàgg bëgg teewee la. sa xaritu soppe sa soppe la. Seyda nee na sa xaritu soppe sa soppe la. te kii Kiné Sy maman Aminata Sy soppeem la. ci kanamu baay. ci kanamu baay. kon loolu lu yàgg la. kon loolu lu mu ne kon nag bu yàlla defee mu teew fii tey. mu ne mboobu bu ko teewaloon rek teew na ndax jëmm ji. bu ma teewul woon yee sax teew naa ci ñu jëmm ji. mu ne même moom bu teewut woon sax teew na ndax jëmm ji waaw ndax jëmm ji dina ko teewal ndax jëmm ji mi ngi teew ak ñun saa ne mu ne kon nag mi ngi wax alhamdulilah mu ne mi ngi santaat ci beneen yoon ndax kët mi yëpp bii liñ fi lim ci salaatul fatih salaatul ala nabi alquran gi ñu wax lépp lu ñu wax ñeel Cheikh Tidiane Chérif mu ne kon ñu mën a wax lu may sant ñu gërëm ñu jaarale ko si buntu Mawlana Cheikh al Islam El Hadji Ibrahima Niass moom mi nga xam ne moom moo ñu joxoñ bëggaloo ñu Seydi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu Seydi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu joxoñ ñu Seydul Wujud sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon du ñu mën a wax lu dul jërëjëfee Baay Ñas di ko waxaat jërëjëfee Baay ñaari yoon di waxaat jërëjëfee bàyyi ñetti yoon. mu ne waaye nag mi ngi mi ngi gërëm Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy bi nga xam ne moom moo ñu may jotaay mu ne jarul guddal li ñu waroon wax yépp wax na ko mu ne lépp lu mu fi wax lu ci bàyyi. mu ne bàyyi nangul na ko te nangul nañu ko ñun ñëpp alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin mu ne kon nag ñu def fatiha ak ñetti salaatul fatiha ci kaw ñu tëjee ko jotaay bi may ñu guddi fan may ñu wér amin yàlla dolli jàmm ci Sénégal amin yàlla ndax ci xol yi bëgg yàlla bëgg yonent bi bëgg Cheikhu Tidiane ak bëgg Baay radiyallahu taala salaamualeykum wa rahmatullah kon gan yi malik yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bi